waaw kontaan rek di dellu sant suñu borom comme moo moo def lii si man tey ma joué sama premier match ma dugal yàlla def ñu gagné dama koy gën sant rek di ñaan yàlla mu ko ne incha allah. non atteindre guñ dara fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla trois matchs lañ joué gagné trois matchs donc euh, sénégalais yëpp xam nañ suñu objectif mooy lan donc dañuy làqatu rek ba keroog ñëw naan ko ci rek incha allah rabi te loolu ñaan yàlla. non man comme li may faral moo dogaloon kan bële tamit kan bi ma ñëw moo mu def li gën man Je suis en bonne santé di jouer ay match bon dama koy gën ñaan yàlla rek dama koy gën je ñaan mu